salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki auditeurs yi ak bokki auditrices yi ak bokki patriotes yi ak bokki Pastef noo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen bal xaq te di leen bal xaq te ñaan yàlla mu boole ñu jéggal demaan mbégte rek dikkaat ci sunu jàngatu bis bi muy xubbul watan jëmewaat ko rek ci jëmm ji nga xamante ni si boo ko gisee doo ko xàmmeek dawkat yi ñuy yeew ci kër yi te ñuy lore nga xam ne fu nu rëcc rek danañ def gaafu danañ màtte mu mel ne nag kooku moom lay méngaleeg waa ji ñuy wax Moustapha Jaxate xam naa bu fekkante ne am ngay bokk day ñu di la bàyyi ngay génn ñooñu de jàpp naa ne buñ la bàyyi ngay génnit moo dof bu nuy yeew ci kër gi te bu rëccee lore ñu ne la nag léegi dee ko yeew ci kër gi nga bañ koo yeew moom génn dagg def jéye yow mi nga xam ne yaay kilifaam yow lañuy ñuy jàppale bu ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgul jàpp leen ne juru leen nit ab dof ngeen juru juru leen nit nit ku baax nit ku bon ngeen juru waaye it na ngeen xam ne am ngeenum nattu ndax natt bi mooy dañ ne ku màgg gërëm sa ndey mbaa nga sikk ko ku màgg gërëm sa ndey mbaa nga sikk ko wolof dafay wax ne layoo bi jeeg layoob jeeg yi bu doom yi màggee àtte leen Moussa Jaxate mii de man xamu ñu ko jur waaye xam naa duñ sigg ci seeni kanami naw li mukk ak mbëkk am nañ naqar lool te ñu jiitu muy juddu dey ba waajuramu jigéen di wàcce ci kër gi xam nañ lu jiitu Moustapha Jaxate di juddu kon ñooña yaakaar naa ne bu defee lii dinañ ko xam te sëñ Thierno Gelongal waxoon rek moo ci am ne askan sàngam bii képp ku ma gis nga def ca loo jaaduwul wala nga def loo wër te def du ma jaaxal ndax xam naa fam la toppe loolu nag day faral di am ndax jur doom te tekkiwul jur doom mu dëkkee di la teg ay naqar jur doom mu dof waxtu jot fu mu génn ñu ne dof ba génn jur doom ju amul njariñ jur doom ju tekkiwul jur doom ju yàq société bi diine jur doom juy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ji mu def lu mu kóor te wax jur doom joo xam ne dafa bañ dogalu yàlla jur doom joo xam ne fu mu gisee lu baax bañ ko jur doom joo xam ne yéenewul kenn dara jooja doom day taxul kenn di sëy taxul kenn it di takk soxna te loola dal na njabootu wala waajur yi ñii nga xam ne ñooy Moustapha Jaxate man nag tiitatuma ci ndax loo gis lu ne am na àpp sëñ Tuubaa dafa am lu ñuy jàngal daf ne nit ki boo ko fekkee ci ab safaan muy def lu ko neex te dara fekk ko ca bu leen defee ne da koo jig maanaam seytaane ci boppam mooy dem wuti ay kuréel kuréel yoo xam ne kenn ku nekk xam na la ci ak yàq mu ràng ñëpp andi leen nee na diir boobee muy dem nag di wuti ñooñu ku la romb danaan kii de lim nekk jig na ko waaye bu nu agsee bu nu dalee ci sa kaw lépp dokk nekk dëgg kon nag yaakaar naa ne xarum tabaski moom bu rëccee dugg ci sa néeg toj sa armoire buy jar deux million du tax mukk nga rey ko ci bis ba ndax bis bi jotagul te kenn du romb bisu dee waaye natt bu yit natt bu ne yit kenn du ko weesu ci laa gis koo xam ne képp kum jublu ba tagg ko kookaay ki gën a bon ci kaw suuf kum tagg waaye kum ŋàññi kookaa gën ñëpp kon na kenn ku nekk ñaan ci daraja yonent bi Moustapha Jaxate tudd siw tur ŋàññi la bu la tuddee rek jàppal ne yaa nga ci ñu baax ña moo jëmm jooju nga xam ne mi ngi Tuubaa nga xam ne moom tamit dafa salu si lu baax yàlla dogal sax xamul ci alxuraan dara xamul ci diine dara njàngalem yonent bi it topp ko ndigale yonent bi it topp ko te ne sëñ Tuubaa la àndal ba cay wut nag maam di wane ne kii mooy sama maam te kooka di moom it ko wax mu ne la diw daa bañ sëñ Tuubaa mu jaral ko nag wut ay wi ne dañuy wari diw walla mu jël ab sit internet am poste ca fotob diw di ko ca ŋàññi walla kum dégg ngay ŋàññi ku baax mu jël la posté la ci li nga xam ne mooy ab sitam yor facebook am ku ko contre mu bloqué la ku commentaire lu bokkut ak li mu bëgg mu bloqué la te màbb na ñaari ponki diine yu yónnente bi santaane waaye yaakaar naa moom tamit ku bañ yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nangu woo topp ay mbiram boo nee damaa ànd ak sëñ tubaa sëñ tubaa soxlawu la kon kooy tifaar na ko dama dangaa bañ sëñ tubaa yaay ki gën a bañ sëñ tubaa ki bëgg sëñ tubaa mooy ki ànd ak sëñ tubaa tey topp ndigali sañ tubaa te sañ tubaa du digal kenn lu dul yonent bi digaloon muy sax ci jaamu yàlla ak liggéey ku nanguwut a jaamu yàlla kooku boo dee dama ànd ak sëñ tubaa it yaa ca boole sa bopp waaye sañ bi boolewul la ci boppam sëñ tubaa mësta cautionné kenn koo xam ne nanguwut a jaamu yàlla boo ko joxee sa bopp it loola lay jëkk digal liggéey loola jàng loola nga doon as sa set wecc foo dem gën boo liggéey bi su penc ni ko sëñ Abdou Lahad waxee woon bu ñëpp taxawee di ramm ba nga xam ne moom wax nañ ne ko jógal ramm mu wax ñooñam ñooñam di ramm bañ na ana ki nga xam ne biñ ko waxee jógal ba na gën a ñooñam ñooy def lii kooku moom mooy sëñ Touba kon nag ñi nga xam ne dañuy réew sëñ Touba ay noon nga xam ne ku ñu ŋaññi rek ne ku bon la kooka jàppal ne ku baax nga ndax ñoom it yàlla da leen a nattu ku baax la ñuy bañ a gis te loo gën a baax ñu gën laa bañ ku baax daal fu ñu ko dégg bu ñu la xamee bu ñu la xamul danañ la commencé di dal ci sa kaw di la tifaal te la ñuy njëkk njëkk dal ci sa kaw mooy diw gëmul sëñ Touba ma yaakaar ne nag sëñ Touba moom ku ko gëmul ku toppul sëñ Touba kooku yoonu kenn nekku ci ku ne am nga liibar ci sa bopp bañ a gëm dara ku ne am nga liibar ci sa bañ a topp dara waaye nag bala ngaa doon ab murit boo ne sëñ Touba say sëriñ da ngay doon ab jullit ba noppi ku doonul joteewul sëñ tubaa dara waaye ku ne damaa ànd ak sëñ tubaa it ba ku wax nga ne ko bokkoo ci sëñ tubaa da bañ sëñ tubaa da ngay xool yow jëwriñu sëñ tubaa ji nga xam ne yow da nga koo bañ yow muy Seydou sallallahu alayhi wa sallam te képp koo xam ne ndigali yàlla yi doo ko def bokkoo ci wu xeetam ku bokkul ci xeetu na Muhammad nag nooy ànd ak sëñ tubaa ak sëñ tubaa nan lay fekkee koo xamee ne nii dafa bàyyi ndigali yàlla yi ba pare nag nga bëgg ci moom dara te naroo ko jaar ci jaamu yàlla. kon ñaar ñii daal na ngeen xam ne kii moom damay tudd turam kenn du tudd turam ndax kenn dama ko seexloo tudd waaye Moustapha Diakhaté mii daal moo jëmm jooju bu doon aw gangal ci yoonu murit ñooy gangal ci yoonu murit yàlla dogal bëgguñu ku baax te ku baax koo dégg ñu tudd ko dana ah ñeme nañ koo saaga wala ñu wax ko gàkkal ko te la koy tifaar ak di ko ko wax ma nga ca ñoom te ñooñee ñuy tifaar ak wax ñooñe ñooy ñi nga xamante ne ñoo leen ndax danañ wéyee ndigale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yéen ñaam lu leen naqari ci invitation Moustapha jaxate yi dalal leen seenum xel te xam ne mbir mi yàggatul mbir mu ne am na bis lay xaaral bisu tabaski mu jotagul nag tabaski gi nag jegese na fan yu néew a ci des ba soobee yàlla moom bu tabaski gi ñëwee moom du ko romb moom beneen bi ci des it nag mooy nit ku iñaan ay mbiram dafa yaatu ndax gis nga ne moom fi mu ne nii fu mu bëggee plateau télévision am ko te ñu baax ña ku ci bëgg tal palaatub télévision da nga def safa ak marwa te du tax nga am ko léegi nag moom fi ne site bu jógee bu daanalee beneen jël télé bi nga xam ne nag mooy ITV nga xam ne mooy télé bi mujjee ñëw ci senegal waaye ñoom ñépp dañoo maase doon anti li nga xamante ne si mooy euh, ñii nga xam ne ñooy door a toog ndax xam nañ fondation ba la ko waral la waral fondation ba nag du dara lu dul jàng ba am sa diplôme dégg nga ñu ñëw jël sax jënd sa xam-xam jox la organe jox la licence ngay dëkk di saaga ak dëkk di loolu nekkul ci wàllu professionnalisme ci wàllu journaliste kon nag ñooña bu fekkente ni am nañ seenub signal te ku tudd seen patron dégg nga ñu censuré la képp koo xam ne wax nga lu leen arrangéwul ñu censuré la nga mën a jël maanaam jëmm di ko teg sa télé muy saaga koo xamee nekk ni ci institution bi la bokk nga di ko diviser jàppal na rek yow it sa bés dafa jotagul waaye dana ñëw te télévision yooyu ñu ngi feeñ ñetti télé lañ ci biir Sénégal wala ñeent TFM ci la bokk Sen TV ci la bokk ITV ci la bokk 7TV ci la bokk ñeent télé yii ñooy ñi nga xamante ne si bu jàmm amul Sénégal bokk nañ ci ñi ko fa participer te ku bon ku ngeen dégg muy xas régime bii fi nekk rek ci ñeenti télé yooyu ci benn la fay dem bañ nañ ko ba journaliste la ñuy recruter sax recruter wuñ la ngir ngir doy leen a recruter uniquement pour ñu leen xasal ak di leen saaga ak di leen wax dara loolu nag da ngeen xam ne jeex na dakk na kenn ku nekk boo àggee ci sa numéro da nga ko tobbi te boo ko tobbee bu soobee suñ borom da nga loo doon loo doon loo doon taxawale ab organe presse organe presse taxawuluñ ko ngir di daggi saaga organe presse taxawuluñ ko ngir arme koo bëgg a xeex jaarale ci say message organe presse boo xam ne sii ku ne neex nga ci invité nit ñama na faa taxaw dagg aw saaga dégg nga ñu directé ko organe de presse yoo xam si dañuy def wax sa xalaat lu neex waaye nit nga jël ko yàq ko kenn du ko censuré te boroom kër ga bu si boo ko tuddoon ñu daal di koy dagg jaral na leen sax ñu daal di suspendre boobu émission loolu gis nañ ko te presse du yëguñ ko loolu comme presse bi nag léegi saaga xeex dong la ak defal ma ma defal la na ngeen xam ne loola jeex na dana ànd ak système bii ànd ak Macky Sall rey nañ leen dee na xëy na wéqu gi moo ci dese waaye dana dem ba jeex tàkk ba Sénégal ñu saxal fa ngor saxal fa jom saxal fa diine te kenn duutu mën a tooñ kenn kenn duutu mën a lor kenn wala ku ko ca def sañ-sañ ya la fekk fa nga nekk kon nag Moustapha Diakhaté mii moom toog leen di ko seetaan ay mbiram yàggatul du menace nag ndax moo ko yóbbee boppam ndax jëriñul dara ci société bi ba pare waxtu jot mu mën a am fitu sol ay yërëm dikki toog ci plateau tele ñu di ko jay muy baw di daggal nit ñi ay saaga li nekk ci xolam bu bon bi yépp mu di ko yàbbi di ko joxe